jërë ngeen jëf mbokki internet yu Dakar Actu tey nag ñu ngi fi nga xamante ne ni moo ci université Cheikh Anta Diop comme ni ñu leen ko defalee woon dimanche bi passé ci match Sénégal contre Tanzanie bi nga xamante ne gagné woon nañ ko 2 buts à 0 fële ca place de la nation tey nag ñu ngi fii nga xamante ne moo di université Cheikh Anta Diop ngir dëgtal leen li nga xamante ne moo di ambiance bi am fii nii après match aussi dinañ ñëw joxaat leen yeneen information yi nga xamante ne moom moo jot am fii ci université sëñ bi la tudd. Mandiabe Gueye laa tudd. match Sénégal contre Algérie muy deuxième match. phase de poule Coupe d'Afrique des Nations. Euh, lan mooy sax lan ngay xaar tey pour équipe nationale waaw di xaar comme ñu andi lu raw lu ñu andi woon keroog rek la fois passée xam na tamit ndam lañ bëgg ko moo tax ñun ñëp ñu ngi seen ginnaaw di leen ñaanal tamit ñu am ndam daal te xam nañ lépp lu ñu yokk góorgóorlu rek doyul parce que match keroog bi neex na lool mais tey bu ñu bu gën a neex moo ñuy gënal parce que ñun ñëpp ñoo ngi seen ginnaaw. alors maintenant yàlla mu may leen ndam tamit. victoire lañ bëgg xam nga joué comme ni joué won contre Tanzanie mais gëna améliorer amélioré euh, di gëna a comment baña je raté occasion fexé dugal ay marqué dal comme comme en général dama ko bëggee wax dal marqué dal paj. match victoire rek la gis quoi franchement. Et j'ai confiance avec le retour de Sadio Mané. Je pense qu'on a tous les atouts pour battre l'Algérie. Et vu que l'Algérie, c'est la troisième fois consécutive qu'on se rencontre en Cannes, et toujours, on a eu des difficultés à battre cette équipe d'Algérie. Et cette fois-ci, je pense que ça sera la bonne. match tey bi am équipe boo xam ne war na a dóor sax champion du monde bi équipe France bi tey tey amul ko xam ne war nañ jàkkaarloog moom di am xel ñaar dinañ ko dóor wala duñ ko mën a dóor damay wax kay score bi day rëy wala du rëy loolu laay wax. Aliou Cissé waaw am ci moom confiance bu baax a baax a baax waaw tey am naa yaakaar bu baax a dana def classement bo xam ni dana danañu may victoire InshaAllah. looy xaar ci match Sénégal contre Algérie léegi. maa ngi xaar Sénégal may ñu ay but par exemple cinq buts ci match Algérie bi daal franchement bëgg naa mu gagné Algérie. 5 buts nga wax. xanaa xamoo Algérie xam naa Algérie mais gëm naa Sénégal dina agsi foofu noonu. Algérie du équipe bu ndaw de quand même. Sénégal tamit du équipe bu ndaw de. Sénégal moom nekk na xam na ne Algérie da koo yàgg sonal mais amaana tey ak euh, équipe bu bees bi ñu am ni par rapport ak démb du nekk benn. ak booy ñu am tamit gëm naa ne bu ñu gëmee seen bopp quoi tel na sera pas la kel népp nekk benn daal dinañ dinañ ci génn daal. Euh, Algérie dafa nekk équipe boo xam ne moom tamit dafa efficace parce que ñoom occasion boo ratee rek ñoom fi amee man peut-être mën nga exploiter ñoom dugal te bu loolu du ñu arrangé kon occasion ñu am nañ fi profité dugal rek pour ma gën a mën a kii quoi.